damay bañ ñu ne jaxase na 66 ans la Maodo dund waaw kañ loolu rek laa soxla woon ci téere bi waaw xoolal nag 66 ans 66 ans dund gu gàttee noonu juróom benn fukki at yow mi déggul tubaab di ma déglu juróom benn fukki at ah waaw dat yépp rawaan indi na ko

fi Maodo dem ñi mu formé li mu def li mu liggéey li mu taalif li mu tabax ciy jàkk fi dem ci réew mi mission yi mu dox makkatal mukarram keer ba Union soviétique Russie Maodo dem na fa bi muy aji ba Union soviétique Maodo dem na fa teg fa xeeru jàkk Paris mu yebal maam Abdou Hamid Kane Côte d'Ivoire alaaji ndari gabon alaaji amadou gabon góor ga mbay gabon mooy ndari mbay boo demee rek gabon rek la la leen ndëri mbay ja man dem naa ba gabon looloo ma yóbbu woon man dégg ngeen bi ko ba moor di nettali fii ñama xam gabon ma boole kook ñoom man bu ma ko exploité woon rek àddina tukki moom ma ma ma booleeg ñoom rek ba mu demee 2 millions lañ ko may. ngeen dégg maa ko ne demal boo boole naa la ak diw mu dem ñooñu gëmee wuñ ko yàlla 2 millions la njëkk keroog la jëkk a téye 2 millions. ah moo ko wax fii ngeen dégg la njëkk a téye 2 millions ci hadiya man la ma fa yóbbu woon teg bët barabu alaaji ndar yi ba moo ma fa yóbbu woon dem naa ba teg ko bët. fa mu génnee àddina zawiya ba mu fa tabax fa mu ko tabax moo gën a yéeme diggante pale ba ak ministère de l'intérieur fa la fa la ba nekk diggante pale Ali Bongo bi ak ministère de l'intérieur fa la zawiya ba nekk te ba mu ko fay def ñépp xam nga boobu xërëm rek la ñuy jàmm jullit sax bariwu ñu ne ko du am fétiche yi naaw mu ne Maodo ñëw yàqazatan jox ko dog rëdd ko ñibbiwaat ci awa maa dem ba ba Gabon teg ci bët góor ga Thiam ku mag la taalibe Seydi Jamil la moo jur Lamine Thiam bi nekk RTS maa maa de am léegi mu am téeméeri at mu nga Gabon Seydi Jamil la ko fa teg mën naa la wax la tax Seydi Jamil teg ko fa Seydi Jamil ku doy waar la Seydi Jamil la ko fa teg mu nga fa ba tey Lamine sax bàyyi na RTS dem fekki baayam te waxoon naa ko ko naa sa bàyyi kàggu la bibliothèque la nga nekk fii ci RTS bii rek bàyyi sa bàyyi ca Gabon demal sa bàyyi ñépp a ko fonk Gabon maa dem yendu këram añee fa posé ko ay question soxna su baax la yor gabonaise bu baax lañ ko dënku ku yiw koo xam ne góor gi mat na ko sët mat na sët góor gi moom lañ ko dënk boo demee muy bàyyi faalu góor gi nag laa la wax soxna su baax mooy bàyyi faalu góor gi laa la wax mat na ko sët laa la wax de góor gi léegi moom téeméeri at dinaa leen wax beneen yoon condition yi ko fa Seydi Jamil tege Seydi Jamil du nit laa ilaha illallah góor gi ne yooyu duma ci dugg sax yooyu beneen affaire la fam fam rëdd zawiya bi rek moo gën a garaaw ci ngay xame ne Seydi Hadj Malick bokk ci xoolal nag dund gu gàtt gi Seydul Hadj Malick mu ngi gànne àddina 25 février 1856 mu ngi ko ganee ci barab ca gaaya fam ganee àddina rek moo njëkk a garaaw yéen ñi dem gaaya gis ngeen ko fam ganee àddina rek moo gën a moo njëkk a garaaw du gis ngeen ko loolu duñ ci yàgg waaye condition yi mu fa ganee àddina maam Fawade Wele wax nañ ne diiran li ëmb Seydul Xaaji Malik mosul yëg métit métitu mat wala métitu biir buy métti wala métitu jigéen mosu ko yëg ma wax la li gën a gàtt maam Fawade Wele daan na def fukki junni salaatul faatihi ak juróom-ñett par bés dix-huit mille salaatul faatihi par jour diiran lim ëmb Seydul Xaaji Malik xam nga gaa yi fukki junni ñaar la ñuy def moom xayyu la jëloon moo tax Maodo xayyun la yamuut gaa yi fii yëpp fukki junni ak ñaar xam nga moom lañ gën a métti te secret bu garaaw a ci ne lu tax maam faa wàdd wele teel a xam xayyu alxayyu mooy xayu mooy 18 fukki junni ak juróom-ñett 18000 salaatul faatihi la maam faa wàdd wele daan def par par jour diiran li mu ëmb Seydul xaj Maalik wax nañ ne dem nañ ba bëtam yi sax dafa weexoon moom amatut lu ñuul maam faa wàdd wele moo tax Maodo bi mu juddee léeg mu dem léeg mu ñëw nga xam ne du caaxaan Maodo daf daan am diir boo xam ne doo gis per bu ñuul bi léppay weex yooyu dinaa ci ñëw loo ñuul lii ngay gis mu wër Maodo daf daan jékki rek yépp weex tal tal comme perkal dara du ñuul yépp ay weex Maam Laaji Rawaan nee na su ma gisaan mos gis mu mel noonu rek mu ne fan yooyu yëpp duma ko jege ne nag ku ko jege rek di nga yëg ne du Maodo waaw mu ne su ko masaan dal nag ndeysaan ci kersa gi day wàcce capuchon jàllaabe bi hayka bi sëgg ne na mën na mu ne mën na ko dal ñetti fan yoo xam ne doo gis per bu ñuul bi lu weex rek day sëgg rek ne na foofu yëpp nag man rawaan duma ko jege mu ne bu ñuy julli ci sax ci gannaawam rek laay nekk suñ sëlmalee it ma meeb dàll yi ndànk ànd ak moom bu ñëwee ma dànd ko lu dul mu ne ma rawaan ma ne ko la béykat si mu ñëw ma ñëw mu wax ma lim may wax ma dellu mu ne ba am na bés mu toll ci xaal boobu ne ma rawaan ma ne ko si mu ne ma defaral ma kafe ba mu yàgg mu ne ma bakkoon defaral ma attaaya nee na mu toog rek sëgg maa ngi toog nee na ma defar attaaya ji defar defar mu ne foofu maa ngi raw xaaji rawaan te xolal dinaa la wax ponkal mu doy ni xaaji rawaan ne na maa ngi tiite tiite tiit tiite tiit ndax xaal bi Maodo nekk rek te waxut nee na ma fàttee suukar attaaya bi ndax ji nee na ma jéeri jéeri jox ko nee mu mos ne ma rawaan xanaa suukaroo ko mu ne ko si fàtte rek mu ne ko du fàtte rawaan man nit rek la looy tiit ci man rawaan nit rek la mu ne keroog laa gëm ne Maodo nit la su ko waxutoon duma ko gëm mu ne keroog laa gëm ne Maodo nit la ndax moo ko wax ma dégg mu ne su ko waxutoon duma ko gëm ndax xaal yi mu daan nekk ak façon bi mu daan mel doo gis doomu aadama bu mel noonu ma wax la ne fukki fukki jaw fukki jaw salaatul faatihi fukki junni ak juróom-ñett dix-huit mille salaatul faatihi la maam faa wadd wele daan sikkar diiri diiran lim ëmb Cheikhul Hadji Malick te du génn jàkka ji këram jàkka ji këram moo tax Maodo miin miin jàkka waaw maa ngi mouchoir de waaye man benn mouchoir lay utiliser par jour pour yar sama bopp benn benn lay utiliser par jour pour yar sama bopp ndax bu mu baree nga gis ko rek taxul nga yàq taqlilu maa i dañuy jàngal ca laxdari néewal ndox booy jàpp ndox mi bu mu baree rek tax nga yàq ndox taqlilul maa i lañ la jàngal ca laxdari wala déet néewalal ndox mi ngay jàppee du la musuwaar bi bari na rek ngay ñendu di sànni non jëlal par benn jour yar sa bopp man benn mouchoir par jour <laughs> yooyu sëñ ñu ko jàngal sëñ Hadé Touré bu mu bari ba nga koy yàq non bu pénurie mouchoir amee foo jëm bu ko xeeb ah bu ko xeeb bu ko xeeb moo tax eh Maodo huit mille salaatul faati la jigéen ji di rëkk par jour boolewu kook dara nag lam cay teg mooy waqafam alxuraan ak guddi naafila xaafizatul quraan la woon maam faa wàdd bëccëg bi laa wax de diggante fajar ak timis balaa timis dana matal fukki junni 18000 yi dana ko matal dooraw def waqafam diggante timis ak gee lay waqaf su paree laazim wadifa bu laazimee wadifa julli gee mos tuuti jël kaamil bi xaaj kaw benn rakka xaaj suuf ñaari rakka sëlmal 5 heures du matin maam Fawad Wele mi ko jur mag mu baax kii xam na ko ca gaaya duma tudd turam xam nañ ko ñoom ñi gaaya ñépp a ko ragal dinaa tudd turam sax nit ñi xam alaaji ji liggéey ñépp a ko ragal ca gaaya baayam maamam moo mosa laaj maam Fawad Wele ñoom dem ñii xam nañ ko gaa yi ñépp ko ragal loo wax beneen laa ji jibi géey moom la ñuy musulu daf ma bëgg man ba gëmeewuma yàlla dem laaj leen ku dem gaa yi ne ko shérif ibrahima sa bàmba maase man mag ñépp mu bëgg <laughs> demal demal gaa yi nga laajte alaaji jibi géey <laughs> nitu yàlla bu mag lasaraar bii gaa yi di tiitaroo ci lay rëq ndiggi gars yi moom du pardonné boo koy kii rek mu falesu la te moo baax nag laa jibigéey ku garaaw la ku doy waar maamam moo masa laaj maam faa wadde ci mbiru Seydi Hadji Malick mu ne ko doom maa ko jur de waaye xaw ma ko mu ne ma mu ne ko maa jur Maodo waaye man mi ko jur maam Fawade Wele mu ne mu ne ko xaw ma ko mu ne ko ndax ba ma ko ëmbee laa njëkk a xam ne du nit mu ne may suma ma yëg mettuti jigéen mu ne te wóor na wóor yàlla ne daan naa toog léeg ñetti fan dafay mel ni ëmb ma ndax du ma ko yëg ci sama biir ndekete génn na doxi soxlaam ba bi mu ganee àddina ci weer at bii ma la wax ak weer wii ma la wax nee na bi mu ganee àddina nijaayam maam alfa moom la ko njëkk wan mu ne bi maam Alpha ñëwee ba tiim ko bi Maodo nee xifet dafa xëm bi ko maam Alpha tiimee ba Maodo nee xifet mu ne bi mu gisee yéen ñi leer gi jógee ci bët yi dafa xëm. booba ndënkaane gi la ko doon laaj <laughs> nee na yéen yaa ngi ratax liis di briller mu ne bi mu nee xifeet xool ko daf ko wóor ne du bëti kese la ko xam la na kooku beneen affaire la fa saxaq fa saxiqa Muusa fa xarra Muusa saxiqan nee na dal di jóg bi mu ximmalikoo ne maam faawaat di wele mu ne ah mu ne ko ah suñu yaakaar tasut li ma gis mu ne ah mu ne ko maa ngi doon ñaan yàlla ba fekkee mujj dundam waaye xam naa ne duma fi fekk waaye alhamdulilahi rabbil alamin la ma seexal Al Hadj waxoon ci moom lëpp gis naa ko bi mu ma xoolee mu ne bi mu ma xoolee laa gis lépp moo ma xamloo mu ne ko nanga ko fonk nanga ko toppatoo te bu ko sàggane ñu ànd na ñoom ñaar di ko toppatoo ba mu dal jàng maa Maodo mu ngi ñu ngi ko yaaya ma ngi ko dalal jàng bi mu amee ñaari at ak juróom benn weer la ko dalal alif ba ndeyam moo ko dalal alxuraan maam Alfa moo bind kiis bi bi maam fa bindee kiis bi ba indi ko di ko jox maam Fawad Wele mu ne ko biig dama gënt gis rasulullahi mu am lu mu koy jox mu koy naan mu ne maam Alfa ne ko comme matati na koom ndax matati na koom mu ne ko ah si eh, wele jox ko rek mu barkeeloo ko waaye li ma gis biig rasulullahi jox ko ko mu ëpp doole kiis bii nga koy jox nee na maam Alpha capp ci baaraamam def ci gémmiñu Maodo la ca des moom mu naan ko <laughs> ah wax na dëgg di dafa capp ci kaas bi def ci gémmiñu Maodo ah jël baaraam bi dugal ci kaas bi yëngal naan barkeelu ñu dalal ko alif ba bésu àllarba moo tax Tiwaawan nga gis lu seen lu bari àllarba lañ koy dal fa la jógee bésu àllarba ñu dalal ko jàng bi ma mee juróom-ñetti at la mokkal alquran min min baqara ila naasi bi riwaayati xafs bi riwaayati warsh hmm? à l'âge de huit ans ci mokkal bu doy waar baat bu neex Alaaji Abdou Aziz bii ñuy yéem ak Serigne kër si du dégg ngeen seen njàngin Alaaji Abdou neex na baat wala neexul baat Cerno Yaxya li nee na maa ko wax ci gémmiñam man Yaxya mu ne maam Maska moo ma ko nettali man Yaxya ma nettali ko mu ne bés lay waxtaan ak sëñ Abdou ba yàgg ma ne ko ah Abdou neex nga baat waaye sa bàyyil dàqoon baat nag mu ne ko fekkee naa julli gu Alaaji doon julli dafa jàng faatiha ba ne wala daaliin am ku ne yuuxu xaaju ay ne dal xam Maodo ne assalaamu aleykum diw mu ne am ne ko kaay jiite yàlla gisatuma ko ci <laughs> mu ne keroog Maodo julliwut jiitewut julli gi dafa ne diw mu ne mu ne ko kaay jiite ndax gisatuma ci yàlla wala daani la lu ci jar daanu baat ba la du baati kese kese mu ne maam maas moo ma nettali man yaxyaa ne ma alaaji Malick dey gisuma ku ko dàq baat ci kaw suuf mu ne waaye baat ba nag daf dul baatu kese kese sawtun min ma mazamiril jannati mu ne ko baatam bi piano la ci piano àjjana yi <laughs> Cheikh El Hadj Malick de huit ans ci la mokkal alquran tari ko ci kanamu ndeyam maam Fawad Diwele ci kanamu nijaayam maam alfa foofu lay jeexale li ma ciy teg rek ba dinaa leen wax dat bi ma koy yeggali à de huit ans la mokkal alquran bi mokkalee alquran à de huit ans ci la ko maam Alpha dalal xam-xam waaye yeggaguñ ci lax laxdari nag yenn xam-xam yi la ko doon jàngal yenn asraar yi waxuma xam-xamu téere de asraar yi la ko doon jàngal Malik boo gisee lii mooy lii lii mooy lii lii mooy lii lii mooy lii ba ci ay yi ngeen yi gaa yi di tiitaroo yépp ay alfu buyoot ak eh, eh, xaatimu eh, sal musalasul Ghazali musalasul kunti yi yu soof yooyu la ko njëkk a woon ne ko yii bum la jommal man mii sa najaay li ma ci xam <laughs> lakk jeexalu ko wax jàngal ko ci yooyu yam ko ci jàngal wax ko ci yam ko ci wax waaye mu ne la cay kiimaan léeg-léeg mu wax ko loo xam ne rek mu ne Maodo def ko naan buñ ci dolli woon lii du baax ñene <laughs> te day yëg ne loolu bunt la ci xam-xam bu mu xam te moom jàngalu ko nee na ba am bés mu ne ko Malick fooy jàngee mu ne ko wattaqullaah wa yuallimukumullah Malick fooy jàngee mu ne ko wattaqullaah wa yuallimukumullah fa la ko dal jàngale ba dalal ko nag lax à l'âge de quatorze ans ci la dal laxdari bi mu koy dalal laxdari am na nag ay xilaaf waaye man bii laa tànn ndax ci mag ñi ma ko jëlee moo tax bi mu ko dalalee laxdari nag foofu la wax ji amee daf ko dalal laxdari bésu àllarba ñu tëral bind awwalu ma yajibu alal mukallafi baada bismillahi rahmaani rahim ak salaatu ala nabi bi ak xaddima bi maanaam ki bind téere bi taalif ko bi mu ñëwee ci bismillahi rahmaani rahim ba yegg ci wa sallallahu ala seydina muhammadin wa mu ne seydul xaaji malik da ko ne nejaay mu ne ah, mu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko ñaanal ma ndax sang baa ngi nii balaa ñëw kontine maam Alfa ne ko anamu mu ne ko maa ngi koy gis de mu ngi nii te maam fa gisu ko Eh, mu tàllal maam Alfa tàllal ñaan ñu continuer awwalu maa yajibu alal mukallafi tasxiixu imaanihi dem ba bunt bi jeex mu teg téere bi nale ne ko Maodo àndu sil mu àndu mu ne ko ah la la Cheikh waxoon jot na jox ma tariqa bi xam nga foog nga laaj ko ba mu ko nee am lu sil rek ne ko ah la la Cheikh Al Hadj Omar waxoon jot na tariqa bi jox ma ko mu jox ko tariqa bi doo noppi mu ne ko sama ijaaza itlaq mu jox ko ijaaza bi mu ne ko ak lam la ca booleeloon anamu ne na maam Alfa kot kot kot fekk def na ko ci poosam génnee jox ko mu ne Maodo xool mbind mi xool maam Alfa sëgg xoolaat ko xool maam Alfa sëgg xoolaat ko xool maam alfa yéey ko wan na ko ñetti yoon xam nga lu tax ndënkaane la bu ko Cheikh Al Hadj joxoon muy xool ndax maam alfa mosu koo xool te bu ko xooloon dina xam du yegg si foofu sax waaye bi ci desit daf ko ci doon wàll lu tax bu ko xoolee xool ko pour mu mën koo xool <laughs> mbonaat day nampal doomam te du ko jox ween mu xool ko xool bu njëkk bi xool bu njëkk bi mooy xaqiqatul muhammadiya xool bu njëkk bi mooy xaqiqatul ahmadiya xoolu ñaareel bi mooy xaqiqatul muhammadiya xoolu ñetteel bi mooy al ibrahimiya yéeg ko wan na ne maam Alfa jazakallahu xeyran waaye lu ma am nga am ci lu ma am rek nga am ci lu ma am nga am ci boo lëgee lu ma am it ñu bokk loolu mooy ismulaay al azamil kabir moom la Maodo wan na maam Alfa na keroog laa yëg nag ci moom muy soppandiku ci xam-xam nu ma man mi koy man mi koy jàngal lu ma xamul mu ne waaye mujj gi daf ma naan ndejaay jàngal ma ci niñ la ko sante waaye ki may jàngal du yow am na ko ne ci sa ginnaaw moo may jàngal li ngay wax boo waxee ba noppi mooy waxaat li may wax man waaye defal ci man liñ la sant ci la ànd ak nijaayam di ko jàngal ba à l'âge de vingt Maodo xam war a xam yépp nijaayam door koo yeewi à l'âge de vingt et ñaar fukki at ak benn fekk na lu nit di xam te ñu koy bind ci téere wala ci këyit Maodo xam nga ko salaamaaleykum wa rahmatullahi wa su ko defee lii ci wàllu xam-xam rek la xam-xamu Seydou Hadji Malick rek ci lay wax nii incha allahu taala tey la lan waaw jërëjëf Hadji Badara yow sa bos bu ko kenn toppandoo nag maa ngi leen koy ñaan mook sëriñ bi bàyyi leen noonu rek. ma des ak Maodo après euh, bàyyi leen ma ak Maodo rek le 21 ban bés la xoolal leen moom. ko taalibe laa la bëggoon def waaye ñaanal ma yàlla ci li la yàlla dënk ma sowee man sëriñ sim jaar fuute yépp ba ñuy fanweeri sëriñ ak juróom-ñeent 39 sëriñ Seydi Hadji Malick jaar na ci ñoom. kon doyloowul lim xam rek 39 jaar na ci ñoom pour yeesal lim xam ak gën ko baaxal ba ñépp defal ko ci ijaaza yooyu nag alaa jab du tudd na ko wax nasabam ni mbokkeek rasulullahi ba nekk sëtu yonent bi xaqan la Cheikhul Hajj Malik moo tax mu mën a yenu lim yenu xamoo sëtu yonent bi la xaqan ba ci Seydina Xasan ni Cheikhuna tiijaan yi nekkee sëtu yonent bi jaaree ko ci Seydina Xasan wa kadalika Cheikhul Xaaji Malik sëtu yonent bi la ba ci Seydina Xasan maa ko nangoo ci làmmeñu Cheikhul Xaaji Abdul Aziz te silsila bi imaam Lamine Diop nee na amoon na ko benn photo sëñ Babacar buñ ko war a ngeen wax waaw kon wone ne it Maodo. sëtu yonent bi la waaye moo tànnoon ne bu ma kenn feeñalal sama sharafu tiin bàyyi leen ma nëbb ko te feeñal sarafu diin bi ndax sarafu tiin bi mooy ay dara karaara dafa may tardel bàyyi leen rek ñu naan ma si Malick mu nëbb ko ndax bëgg fa mu bëgg a yegg mu yegg fa am na loo xam ne bu ko feeñaloon ci sharafam sëriñ bu mu dem danga koy xoolee bëtu yonent bi am foo yem ak moom mu dindi baaraas yooyu yépp ba incarné nag lim incarne nekk lim nekk ca lay jaar incha ba toogam ndar ba demam njaar ne la koy sabab mag ñi ko wuy si ñépp nag ci diir biñ ko wuy si diir su gàttee noonu te xam lu ne ñoom ñépp bàyyi seen lépp ñëw sukk ci kanamam wan ko ne ko yowa ak lu tax mu dëkk Tiwaawan te bàyyi pays yépp ak lan la Tiwaawan di symboliser ci senegal ak ci xadratul ilaahi waaw ah, Tiwaawan du caaxaan de ah ah moo tax maam daawul sol daal daaw fa tufli daaw fa ñendu du fa tuur ndox du fa dem gannaaw kër su mosaan ñëw gàmmu Tiwaawan yii dana fa am ñetti fan du ko def du nelawit nag dafa ne xaram na ci moom mu nelaw tiwaawoon ndax kenn waru faa nelaw xaram na ci moom mu tufli tiwaawoon xaraam na ci moom mu ñendu tiwaawoon xaraam na ci moom mu tuur fa ndox xaram na ci moom mu dem fa gannaaw kër ñetti fan yi mu fa nii la fa daan nekkee mu jigi Maodo woo ko mu ñëw mu ne ko kan mu ne ko mu ne ko yow moom nangul naa la sa ngant del yem kawlax di fa gàmmoo te bañatee ñëw moo taxoon mu may ko muy gàmmoo Kaolack xaddam yépp mu ne leen yéen dee leen ñëw waaye Abdul Hamid kan yow del des Kaolack ndax sa ma dafa metti sa orma dafa kowe te ñoo ñëpp dañ jàng liñ jàng de ba xam liñ xam de ñëw rek benn baat la Maodo wax ak ñoom ci ci ci ci yàlla benn baat ci yàlla waxuma ci téere yii de ci yàlla ndax ku ci nekk ci ñoom am na lu lay itteeloon ci yàlla dangay ñëw booy sukk bay wax Maodo rek mu ubbil la bunt bi wax la ci loo xam ne yow ci ngay jébbaloo yow topp ci gannaawam te jour bi mu la koy waxee jour boobu la lay defaral sa lépp ne la bu la neexee toog bu la neexee dem moo tax boo masaan ñëw sëñ Abdoul Amin nee na ma boo masaan ñëw bi wax ba pare danaan la ah am na fi de <laughs> ah, am na fi de li ngay ut am na fi de waaye nañ bokk toog ma seet ba xam nu may def ak yow yooyu yëpp danañ ci dugg mag ñooñu lu taxoon ñu topp ko ak nim décentralisé décentralisé tariqa bi avec te mag ñi ñii fii ñii fële ku ci nekk mu am fu mu la teg ngay doxal tariqa bi comme moom fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin jeexale nag bu boobaa mooy li ma waxoon lu tax nag mu ne bu ëllëgee bu yonent bi dekkee Seydina Abubakar dekki Seydina Omar dekki Seydina Ousmane dekk Seydina Ali dekk mu ne billaahi man Malick Fawad damaa leen di juróomi ñoom xalifa yooyu am na sabab am na lu tax moo taxit mu tëdd Tiwaawan foofu mu tëdd Tiwaawan ci pays yàlla yi la bokk danaa leen wax ni mu correspondre ak xadratul ilaahi ni nga xamee ne masjidul aqsa noonu la correspondre ak buntu asamaan moo tax yonent bi jógee woon makka dem baytil maqdis subhaanalladi asri bi abdihi leylan min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa alladi baaratna xawlahu lu tax li nuriyahu min ayatina lu tax ki ko ko wax innahu huwa samiun basir noonu makka di di direct moom baytil maqdis di buntu asamaan Tiwaawan dinaa leen wax li mu ci pays yàlla bi ba Maodo tëdd fa li ma leen ciy jotal ñamal tuuti rek tuuti muy ñami bët buntu zawiyem bii ci Dakar 92 kilomètres net la muy Muhammad sallallahu alayhi wa